Bougane daal dinay agsi ci plateau bi moom nag c'est Moussa Sow Moussa Sow bu APR Moussa ñoo ngi lay nuyu di la maa ngi lay fay. Hmm. di nuyu Abdoulaye Mal. di nuyu également sénégalais yi ñuy seetaan jamono ji. waaw Kaja je pense que waxtaan bi euh, comme ni nga ko waxee am na solo déjà euh, yaa ngi koy rappeler ci li nga xam ne moo xewoon démb par rapport ak euh, li nga xam ne mooy assises national yi jëm ci wàllu justice Moussa yow démb dema woon jam ñaajo waaye am na ku leen doon représenté foofu di maître Oumar Youm déjà nan nga gisee li xew démb jam ñaajo ñu regroupé ñi nga xam ne dañoo yëngu ci wàllu justice ñu regroupé également ñi nga xam ne dañoo bokk ci société civile loolu yëpp ngir waxtaanee wàllu justice à un mois la gouvernement bi def est-ce que jàpp nga ne loolu dafa bokk ci ay priorité alors jërëjëf jërëjëf Abdoulaye Mal euh, dialogue moom lu am solo la dëgg yàlla dialogue lu am solo la parce que ay nit bu ñu dajee rek amaana njëriñ juddu fa euh, mais lii yëpp mën nañ ko santé ki nga xamante ne mooy président ba woon muy le président Macky Sall c'est lui qui a institué au Sénégal une journée nationale du dialogue <coughs> un certain 28 mai mm -hmm. donc 28 mai bu ñëwaatee suñu république wala euh, suñu président bi fi nekk tey organiser dialogue donc mën nañ ko mën nañ fàttaliku président de la république président Macky mais aussi mën nañu wax ne l'honneur lui revient maintenant nag dans la journée en tant que telle euh, lenn dafa am ñoom amoon na fi ay jamono dañ leen doon invité ay dialogue ñuy bañ ñuy lànk tey peut-être ñoom ñoo aye mm-hmm. ñoo ngi ñuy invité ay dialogue effectivement ñun jàpp nañ ne te nu sommes des républicains jàpp nañ ne jaloog moom lu baax la looloo tax ñu dem wuyu ji mm-hmm. bi ñu demee wuyu ji aussi ñëpp dégg nañ ñu maître El Hadj Omar yu moo ñu représenté foofu moo représenté APR mm-hmm. donc ñëpp dégg nañ ko euh, mu wax ci ay principes yoo xamante ne du dañ kenn mënu ko dindi conseil supérieur de la magistrature ñun dañoo jàpp ne bu fekkente ne ñoom rupture lañ bëgg a ci mbir mi war nañ fa jëlee ki nga xamante ne mooy le chef de l'État président de la République war nañ fa jëlee le ministère public muy le ministre de la justice garde des sceaux mm-hmm. bu ñu defee loolu ils auront amorcé le début de la rupture leneen li mooy ne que euh, am na ay conclusions yoo xamante ne amoon na fi depuis deux mille dix huit mm-hmm. am na loo xam ne président de la république doxal na ko mm-hmm. ca la nekkoon mais entre bu comment dirais-je buur ak euh, yàlla ak dogalam. Mm-hmm. buur ak buur ak pexeem. Mm-hmm. nuñ koy wax jaam ak pexeem yàlla ak dogalam. Mm-hmm. président de la république. tukulóor buy la 2024 fekk ko fi. jamono jiñ toll le 28 mai. bu ko fekkoon amaana. li nga xamante ne amoon nañ ko arrêté woon nañ ko en terme de conclusion en 2018. da koy wéyal da koy continuer mais loolu. Euh, dès lors que l'état c'est une continuité mm-hmm. mën na moom président bi fi toog tey mën na jukki foofu mm-hmm. yenn ci ay conclusion mu doxal ko mm-hmm. parce que nag quel que soit le dialogue quel soit waxtaan bi ñu war a bi bi ñu war a def ci deux jours yi ala kulli àll dina am conclusion yoo xamante ne dina méngoo ak yi fi nekkoon en deux mille dix-huit parce que ñi fa nekk di dialoguer les acteurs ce sont les mêmes booy xool amul différence bu bari c'est ce son les politiques parce que ñun ñoo seeq réew mi ñun ñoo seeq politique bi mais aussi ce sont des grands sëriñ ce sont des chefs religieux kon daal système bi la daal cest à ñu koy waxee ñoom système bi moo fa nekk ba tey non non <laughs> au-delà même système parce que yow xam nga liy jafe-jafe justice bi mm-hmm. man am na lu ma ci xam mm-hmm. Khadija mi am na lu mu ci xam mm-hmm. keneen boo ko interroger li ngeen xam la ci xam donc loolu rek lañ fa mën a waxtaane kon daal lii du priorité si suñu su ma déggee ci li nga wax Mm. maanaam ñoom waroon nañu xalaat leneen lu dul toog di waxtaane wàllu justice. non dàquma ko gaa. Mm-hmm. waxtaan nee naa leen dans le principe c'est une chose. Mm-hmm. moo tax président de la république bi mu fi nekkee 2012 ba 2024. Mm-hmm. daanaka dafa waxtaanee ñaari mandaam yépp fa toog di waxtaan depuis. Euh, les la la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur vous vous rappelez en 2013. ba mu instituer Euh, le dialogue la journée nationale du dialogue mm. ba deux mille vingt quatre président Macky Sall musul jógee ci waxtaan. Mm-hmm. maintenant nag cette fois-ci c'est la justice moom moo aye. Mm-hmm. ñu war ko waxtaanee. Mm-hmm. war a yokk waxtaan wi laay wax parce que am na lu ñu jotoon a commencé. Euh, maintenant nag dafa am ay conclusions yoo xam ne ñoom lañuy xaar. ay ay dogal yoo xamante ne moom la ñuy xaar ba pare bu ñu dogalee ba pare mm-hmm. doxal mm-hmm. bu ñu doxalul mm-hmm. c'est peine perdue c'est une perte de temps mais c'est une perte également de ressources dafa am dafa am lu lu ñi ñuy seetlu démb Kaja mooy euh, dialogue bi euh, ki nga xam ne mooy euh, ancien ministre de la justice di Ismaïla major Fall déjà gisuñu ko donte joxe na li nga xam ne moo tax ñëwul Aïssata Tall Sall également gisuñu ko Amadou Ba moom aussi gisuñu ko am na invitation lan moo tax ñëwul réellement qu'est-ce qui événement passé non mënuma ci àddu man li ma mën a àddu mooy officiellement le parti hmm. parce que je gère une structure boo xamante ne c'est hmm. affilié mm. au parti l'Alliance pour la République officiellement je parle au nom di parti Amadou Ba fait partie de votre parti ba tey jii nii. bien sûr il est dans le parti il est le chef de l'opposition il est dans le parti. Hmm. wante. alliance pour la république. El Hadj Omar la fa yónnee donc ci. mbirum El Hadj Omar yu laa mën a wax parce que nag yooyu laa am certitude wax dëgg yàlla. Hmm. Amadou Ba déggante wuñu. Hmm. jusqu'à présent il est du parti il est dans le parti génnagul en tout cas officiellement. man invité woon nañ ko de mais nangul dem. mais loolu mën nga invité Amadou Ba moom ci boppam wala nga invité ki ko gën a jege. Hmm. mu mën a waxtaan. après après dinañ ñëw ci relation APR ak. Euh, Ismaïla Madior on l'a invité en tant que ancien garde des Sceaux mais également en tant que acteur euh, de la justice. de même que garde des Sceaux Aïssata Tall Sall donc ñooñu même bu dul woon alliance pour la mhm. république mën nañu wax ni sax Aïssata Tall Sall bokkul alliance pour la république dafa am oser l'avenir am mhm. donc ñooñu dañ leen a invité en tant que des acteurs mais ils ont écrit addu nañ ci li tax dëgg yàlla ñëwuñu présenté wuñu nee nañ euh, dafa am ay conclusions yi fi nekkoon depuis 2018 mhm. vraiment li ñu mënoon a wax wala li ñu amoon pour wax wax nañ ko depuis booba conclusion yooyu loolu daal mooy seen avis ku bëgg am seen avis na jël yooyu doxal loolu la ñu wax en flagrant. d'accord euh, sànq ci sa kàddu yaa ngi wax euh, présence su conseil euh, président de la république ci conseil supérieur de la magistrature mais est-ce que jàppoon ni démb le président Bassirou Diomaye Faye xëy na indi na ci ab tontu ba muy wax ni il faut que ñu éviter créer ab république des des juges wala gouvernement des des des juges. waaw mais réponse boobu noonu du ñëpp ko mën a dégg. Mm. du ñëpp ko mën a dégg il a l'occasion d'être euh, explicite il a l'occasion de dire franchement les choses mm-hmm. parce que nag ñoom bi ñu nekk opposition amul lu ñu fi waxul mm-hmm. ñun pour ñun ñoom bu ñu ñëwee opposition rek bu ñu ñëwee au pouvoir tag le lendemain ils vont développer ce pays mm-hmm. ils vont appliquer tout ce qu'ils disaient étant opposants mais malheureusement ce qu'on voit aujourd'hui euh, c'est une incompétence je veux dire mais c'est un manque terrible de d'expérience moom la ñuy jànkoonteel jamono ji ci seen gouvernance ñoom parce que am na lu bëri li fi diggee woon ne woon nañ am nañ projet que nee ni ah. ndekete amuñu dara da nga jàpp ne amuñu projet non amuñu ñoom ñoo ko waxal seen bopp nee nañ fi ak décembre lay projet bi di pare donc cela veut dire que mm. ñi leen votel mm. nit ñi lañ votel mais voté luñu programme yi mm. voté luñu ba voté lu ñu plan bi ñu bëggoon a teg plan bi baaxul amul. Mhm. lu tax ma ne baaxul aussi am na fu ma ko teg parce que dañoo dem mi ak Banque mondiale c'est deux institutions du Bretton mhm. mais ñoom dañ leen a wax ne li ngeen tee nii seen kayit bi baaxul. Mhm. mën ngeen ñu indil leneen lu mel ne plan Sénégal émergent qui est un excellent plan bu ko defee ñu sukkandiku ci loolu. pour que ñu mën leen a financer mën leen a jàppale effectivement plan Sénégal émergent moo leen xettali parce que plan Sénégal émergent la ñu présenté ñu fi jàppale leen te loolu aussi président de la République ñëpp mën nañ ko seede joué na ci un rôle prépondérant pour que ñu mën leen a financer parce que nag dans le monde ce sont des lobbies dans le monde c'est la relation dans le monde c'est le leadership mm-hmm. dans le monde c'est l'influence mm-hmm. ñoom amaguñu influence boobu président Macky Sall gàcce ngalaama parce que nag en moom iñaanul soxorul ñaanul soxorul parce que bu soxoroon loolu du du leen jàppale. Ah. bu iñaanoon da leen sax jéem a kale. mais ah. au contraire da leen jàppale. ñu bëri jàpp nañ moo leen moo leen fi teg aussi ah. jàpp naa ne aussi jàppale wu leen. Hmm. réew mi la jàppale. Hmm. yow la jàppale Abdoulaye. Hmm. mais Khadija aussi la jàppale. Sénégalais yëpp la jàppale parce que loolu bu ñëwee c'est l'État. ce sera la continuité. parce que c'est l'administration d'une manière globale donc président de la République dëgg yàlla euh, ñii. ay rakkam lañ la leen jàppee mm-hmm. comme ni mu jàppee sénégalais yu bëri de de des compatriotes yoo xamante ne buggul Sénégal souffrir mm-hmm. mais nag wax dëgg yàlla mm-hmm. bu fekkente ne amuñu expérience bu fekkente ne amuñu xam-xam bi euh, nañu gën a faratal euh, laaj ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon mais lan nga jàppee ñàkk expérience parce que bañ fi toogee ba léegi xëñ na yàgg na yàggul mais nit ñi jàpp na nit ñi ngi poser ay actions yoo xam ne euh, mën nañ leen ko nangul que ce sont de très bonnes actions par exemple lu jëm ci wàllu pêche bi euh, assises yi nga xam ne donte nee ngeen 2018 defoon amaloon nañ ay waxtaan ci wàllu justice pour ba gën andi ci ay conclusions mais nit ñi jàpp nañ ne xëñ na euh, mën nañ sukkandiku ci conclusion yooyu pour jëmale réew mi kanam maintenant lu jëm ci wàllu coût de la vie chère effectivement c'est pas effectif mais amala nañ ay waxtaan yoo ne bëgg nañ xool naka la ñuy def ba rendre rendre la chose euh, accessible à la population donc lan ngay woowee manque d'expérience clairement bon li may woowee manque d'expérience je pense c'est palpable hein mën nañ ko sentir bu baax a baax mm. Khadija bu fekkente ne yow musoo nekk directeur général musoo nekk ministre de la république mm. musoo jiite benn institution euh, tu n'es pas au fait de l'état ci n'as jamais été dans l'attelage gouvernemental boo xëyee xëy ñu jox la am réew ah mën naa dox de wante euh, il faudrait que humilité bi ne fi il faudrait que ñu gën a déglu ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon parce que nag bu fekkente ne euh, rencontre woo yenn réalité yi au auparavant boo jékki-jékkee rek ñu jox la euh, présidence de la république mbir mi dana am fu mu sooxe mbir mi expérience la oui mais on est mbir mi xam parce que bëri fi ay toj-toj yu ñu def yoo xamante ne buñ jaaroon ci yenn étape yi duñ ko def. Mm. je suis désolé. nga gis. oui c'est ça la réalité loolu la sénégalais yëpp gis d'ailleurs mm. bëri na fi ay ni ñoo xamante ne seen première fonction euh, directeur la ñoom ñoo ñoo leen nommé seen première fonction ministre la. am na fi ay ministres yoo xamante ne président pour la première fois mu leen di gis c' est lors du premier conseil des ministres ñoom ñoo ko waxal seen bopp. on n' vent pas. Mm-hmm. te avant ñuy toog moo taxit coow coow yaa ngi bëri ci ministre yooyu avant ñuy toog dañ ñoo jaayoon. Mm-hmm. Euh, mën a defar boo xamante ne ñun dañ jàppoon ne ñoom bu ñu ñëwee rek. Mm-hmm. hop le Sénégal le lendemain. on aura un pays développé émergent mais malheureusement ce qu'on voit. c'est le recours à certaines personnalités ñuy daw fii jàppale leen ñu et cetera président Macky Sall je vous rappelle qu'en 2012 bi mu yegsee 18 jour kese la def mu wàññi drastiquement les prix des denrées de première nécessité. oui mais après gis nañ mais après gis nañ demee. non déglul. Mhm. le 2 avril la toog le 20 avril ñu wàññi les prix des denrées de première nécessité. et ça il est il a stabilisé les prix jusqu'à l'arrivée di Covid. bu dul woon Covid bi les prix resteront inchangés ba léegi mais Covid bi ak guerre Ukraine et cetera d'autant plus que nous n'avons pas été euh, en certains céréales. mais c'est c'est c'est c'est logique. Mm. que les prix encore grimpé waat. Mm-hmm. mais dama leen di wax ne loolu ñoom li président defoon en 2012 ba wàññi prix yi. Mm-hmm. mais loolu bu ñu ko amee jël ñun jamono ji ñu toll ni ñoom nañ ko def. nañ ko def. mais mënuñ koo def parce que loolu xam-xam la. Mm. relation la ak euh, xam fi ngay agir pour que prix yooyu wàññeeku. parce que mm. n'oubliez pas. Mm. parallèlement à la diminution de ces prix des denrées de première nécessité le président de la République avait enlevé l'impôt sur les salaires ba tax salaire yokk mm-hmm. parce que bu ñu dindee impôt quand même sur le salaires forcément salaire yi dina yokk même bu dee deux cent francs wala cinq cent francs wala mm-hmm. vingt mille francs mm-hmm. donc loo tax à l'époque salaire yi yokk bu salaire yokkoo nag prix des denrées de première ñu wàññi ko forcément la pouvoir dacha va va augmenter. Mm-hmm. dégg nañu ci ministre yu bëre euh, je pense que Cheikh Oumar Diagne sax moo ci mujjee wax euh, gis nañ également le DG de, de du port autonome de Dakar nee na très difficile de gouverner avec des opposants milliardaires jamono bi ay opposants ngeen euh, dégg nañ également la sortie de biram Souleye Diop. waaye dafa mel ni ñi nga xam ne ñoo ànd ak euh, président Bassirou Diomaye Faye bu ñu waxee rek comme ni nga ko waxee euh, ñu daal di waaru parce que gis nañu Cheikh Oumar Diagne daal di ne moom mi nga xam dañ ko nommé lu yàggul ministre conseiller au de la République mu ne dañuy tabax ci tale bi euh, palais bi benn mosquée. nan nga jàngatee ces discours là yoo xam ne ay nit yoo xam ne ñoo war a représenter aujourd'hui la République seen taxawaay di xaw ak ni nga xam noonu la République war a xam nga Abdoulaye Mal mooy li ma doon wax sànq rek. Mhm. gis nga laala c'est le début de l'arrogance pouvoir mhm. day maye day joxe loo xamante ne si yow mi koy wax sax doo comprendre yow mi koy wax sax doo comprendre mhm. comment. vous êtes bien placé pour oh, loolu yàgg na leen ko wax. mën nañu wax ne sax nguuru wul en <laughs> réalité Khadija. ah oui ay ndaw lañ comme yéen ñi. li <laughs> ñu nguuru bëriwul. mën mhm. nañu wax ne ñun opposition lañ xam. 2008 lañ créé suñu parti. 38 mois d' opposition lañ def. xeex xeex bi 2012 ñu ñëw au pouvoir. Mhm. yàlla def nag entre temps solidarité bi ñu amoon diggante 2008 ak 2012 solidarité boobu yëpp naxsaay dem. Mhm. ko defee les gens faisaient di n'importe quoi en un certain moment. Mhm. on a perdu aujourd'hui le pouvoir maintenant nag il nous faut opposer dignement pour mmh. reprendre le pouvoir reconquérir le pouvoir c'est bien possible nous sommes des jeunes. amaguñ soixante quinze ans de. <laughs> donc nous sommes des jeunes dinañ xeex xeex bi ba jëlaat réew mi mais li ma mën a remarqué ci kàddu yi yi yi Abdoulaye wax mooy ne que c'est le début de l'arrogance manque d'expérience bi ma doon wax ak pouvoir ñoo ngi leen di waaja a jeex comme comment un peut construire une mosquée dans un palais de la République alors que le pays est un pays laïque est un pays laïque yaa ngi jaxase religion yi di xalaatuñu loolu peut-être moo tax en parlant il faut remier cette fois la langue en tant que quelqu'un boo xamante ne dañ ko dénk ay responsabilité yu rëy a rëy nañu wàññi seen wax ji parce que nag dañoo wax a wax a wax ba am pouvoir fenn fenn fenn ba jël réew mi fenn fenn nag mënul continuer boo nekkee boo nekkee ci pouvoir bi mhm. mais loolu mooy dëgg di pouvoir ak opposition ça fait deux li ñu doon def opposition mhm. di manipuler mhm. di fen di jaxase nit ñi. Mm-hmm. loolu boo ñëwee pouvoir boo ko changé wul ti vas heurter le mur ah. mm-hmm. war nañ ko changé dafa nelaw côté dafa nelaw côté boobu parce que en tant ministre conseiller également warul yëkkati genre kaddu yooyu. non c'est pas possible loolu ñëpp mën nañ ko wax. voilà chaque journaliste wala mm-hmm. ñëpp mën nañ ko wax. c'est pas possible boo ko defee tu seras obligé de faire là-bas une église bu fekkente ne rek laïque la wax. tu seras obligé là de mettre là-bas d'autres yoo xamante ne peut-être ñoo ngi Sénégal vraiment vraiment war na wax ak ministre conseiller mi quoi. te même je parle même que suñu waxee rek lu doy waar la. te boo fa demee boo fa defee jàkk mhm. mais euh, euh, n'oublie pas ñun bari nañu ay tarix tarix suñu biir réew. waaw effectivement bëri na waaw. ba mën na indi ay conflits yoo xamante ne. non moom nee dafa bëgg jàkk ji nekk ci biir mosquée bi gars yi di nodd ci biir pale bi président di ñëw di julli ñu koy fàttali li nga xam ne moom lañ ko dénk ci réew mi. xam naa daal euh, doy doy na waar daal mais l' autre l' autre qui dit que euh, ay mili ay ay opposants milliardaires également loolu yëpp euh, aussi dafa am lu muy wone. mais arrogance la. arrogance la loolu ce ne sont pas des paroles. Hmm. d' un responsable d' en tant que directeur général ñu jox la lu rëy loo xamante ne si yow loolu war na la doy doy sëkk ci wax ak liggéey ngay dem di dugg ci yoo xamante ne baaxul. Mm-hmm. lii mooy arrogance bi donc bu fekkente ne ñi leen votel rupture leen doon xaar mm-hmm. bu yaboo ñu dem wuti ñeneen déjà présent. Mm. ñi duñ leen apporter rupture de. Mm. parce que amul lenn loo xamante ne def nañ ko mu xaw a nuru ak rupture. yana pas biñ toogeeg léegi au contraire. euh, c'est un retard énorme euh, sur pas mal de de de de de leviers à agir pour que njëg yi wàññeeku pour que emploi yëpp déggati ngeen ñu wax wax emploi des jeunes kenn waxatu ko te aujourd'hui man dama jàpp ne sénégalais yi war nañ seetaan gëm naa ne sax ñoo ngi xool ñoo ngi seetaan bu baax xam nañ ne li fi nekk nii nii nii nii nii mais li fi jógee du sax morom li fi nekk. Mhm. li ci kanam nag raw li gët. lan nga reproché réellement euh, sous sous ce régime là Moussa concrètement mais li ma leen di reproché am na lu luñ ci jot a jot a wax déjà premièrement d'abord dañ ne woon dañ ñu jaayoon njub dañ ñu jaayoon mën a liggéey dañ ne woon li fi nekk dara baaxu ci ñu ne ñoom bu ñu ñëwee euh, dinañu apporter une rupture réelle yenn yi dootu fi am. mais malheureusement bi ñu ñëwee léegi tu sens même pas que ne y a un changement de régime parce que ce sont les mêmes faits nomination. rien n'a changé même les actes posés par rapport ak foncier bi par rapport ak euh, li nga xam ne aussi euh, mooy euh, justice bi da nga jàpp ne actes yëpp ça rien dire. mais ce sont les mêmes actes parce que jamono ji may wax ak yow. Hmm. Bah Diakhaté mi ñu jàpp teguñu ko fenn teguñu ko fen te démb. Hmm. loolu lañ doon kaas dama jàppoon ne bu ñu ñëwee danañ am. do large large do pour que ñu dékku yenn critiques yi. mais Moussa il faut dire que. mais deux jours trois jours yi mu yëkkati quand c'est assez scandaleux et grave. mais président Macky lan lañ ko fi waxalul. mais est-ce que na à ce jàpp nit. te président laa wax de. waxuma la premier ministre. Euh, président la président de la république parce que offense. offense au chef de l'État la ñu am habitude dégg. Mhm. mais offense au premier ministre fan ngeen ko mës a déggee. wala entre temps dañoo changé këyit yi léegi Sonko mooy président kii mooy premier ministre. Ah, <laughs> président Macky Sall dama ne deux mille pratiquement deux mille douze bi mu jëlee réew mi. Hmm. ba deux mille seize deux mille dix sept kenn mosul jàpp nit ci offense au au chef de l' te ñoom amul lu ñu yàqul président de la république au contraire yeneeni problème la ñuy am entre ñoom ak yeneeni nit des privés. ñu transformer ko politique indiwaat ko ci langue politique bi victimiser wu sosal président sosal ñi fi ne ba finalement ñu ëpp nit ñi làmmiñ ba finalement loolu nekk débat euh, dans le pays mais en réalité en réalité ñoom comme que xam nañ léegi seen fu fan lay metti mhm. non foofu rek la ñuy bës léegi comme que comme comme que mënuñoo dékku yenn critiques yi mais mais opposé ak ñoom yomb na de. Ah, mais li li Bah def du critiquer ah. non mais c'est critique la kese la nag parce que nag en réalité offense au premier ministre amul fenn man de maa ngi koy soog génn dégg ci dossier Bah bi. offense au chef de l'État laa doon dégg. loolu moo waral te nee nañ c'est l'article deux cent cinquante code pénal l'article deux cent cinquante-quatre c'est-à-dire article deux cent cinquante bu ñu bu ñu sukkandikoo foofu cela veut dire tout le monde est en même le directeur am na ci ay pouvoir yoo xamante ne mën nañu wax ne pouvoir président de la république parce que président moo ko xaatimal décret bi mu nekkee directeur mais la gouverneur am na ci ay pouvoir yoo xamante ne ce sont des pouvoirs euh, du président de la république yi ñu ko dénk mhm. le ministre kazalika naka noonu mhm. ak keneen ak keneen mais bu bu ñu demee bu ñu bu ñu jëlee logique boobu kon en un certain moment tout le monde va se retrouver en prison mhm. nañ tabax prison yi ah. loolu moo tax yéen ngeen génn seen hibernation parce que loolu moo tax ngeen génn seen hibernation parce que quand même ba ñu falee njiital réew bi day toog nañ ay ay ay diir. dégguñu kenn ci opposition bi. APR ak kenn waa mbiru APR <laughs> mbiru Bah moom moo tax APR génn ci. hibernation bi mu nekkoon waaw nappaate bi ak xuppaate bi ak jàppaate bi donc loolu loolu bokk na ci li déclenché suñu jóg. ñoom ils sont en ils sont en train de nous rendre un service. Hmm. parce parce que ñoo ngi ñu yëkkati. te nag wax dëgg yàlla trente cinq pour cent xam trente six pour cent du du du du n'importe quoi hein dans une euh, démocratie mm. cela veut dire que élection yi di ñëw facilement ils peuvent chuter de quatre boobaa dootuñu am cinquante pour cent de ñu ñu am parce que cinquante quatre pour cent c'est rien du tout c'est une majorité <laughs> étriquée c'est une petite majorité. oui mais une majorité qui a donné le pouvoir à, à un parti. waaw bi ngeen wax ne que parti bi c'est inexpérimenté. waaw amuñu expérience que voilà. Khadija dinañ si biir de ñun ñëppay si biir malheureusement. xam nga bu fekkente ne politique yi rek ñooy si biir. <laughs> réew mi dafa nar a metti daal. mais réew mi dana metti trop. Hmm. parce que gisuma fi relation bi ñu am ba tax ñu war ñu génne ci yenn situation yi gisuma ko. Hmm. parce que en pour être président de la République il faut avoir l'expérience il faut avoir une relation saine euh, solide. Hmm. avec euh, les personnalités au niveau international mais lan moo urgent lan moo urgent bon sang yow ñu jox la réew. ngay dem di indi ay ay Jean-Luc Mélenchon au Sénégal lan moo ci urgent Jean-Luc Mélenchon euh, c'est pas la France officielle mais booy indi sax indil président de la République ngeen mën a jëfalante gagnant gaña am lu mu la bàyyil yow itam am loo ko jox mu jëriñ population yi mais nit ñoo xamante ne comme yow lañu bi nga nekkee opposition di dal ci nit ñi di naan par force nit ñi danañ jël yeneen culture yoo xam ne xamuñ ko xam nga bugguma sax tudd yenn tur yi parce que nag suñu réew ne mérite pas certains certains débats mhm. parce que xam nañ ne pour rien au monde loolu du fi amee même si certains euh, eux ils disent que c'est toléré mais ban tolérance ban tolérance mais c'est extraordinaire ce gars a trahi ñi ko fotel il les a yi ba pare li gën a bon université Cheikh Anta la yóbbu waa jooju université Cheikh Anta temple du savoir te man dama jàpp ne ñoom dañoo am ak université Cheikh Anta Diop problème. Hmm. ban problème émeutes ya à l'époque dañoo lakk université Cheikh Anta Diop taal ko ñoom peut-être liñ fi jànge wala tax. Hmm. peut li ñu jàngee hmm. UGB. <laughs> taal ko <laughs> ba pare ñu indi ku mel ne Jean-Luc Mélenchon au niveau mondial il est banni c'est quelqu'un boo xamante ne France insoumise lan mooy insoumise lan mooy insoumise te aujourd'hui en France mën nañu wax ne ñoom c'est-à-dire moom mooy def la promotion de ces gens la de ces gens-là ay góor jigéen moom mooy def la promotion moom mu yëkkati leen foofu indi leen dakaar il crée un débat il repart mais loolu il ne pas en de travailler pour le Sénégal il n'est pas en de rendre service au Sénégal te nag nañu wax ban problème la am ak université Cheikh Anta Diop de Dakar parce que ñun fa lañ jàngee mhm. fa lañ jàngee yow ngeen taal université Cheikh Anta Diop waxuñu ngeen dem dafa indi ay góor jigéen mais bu yàggee dinañ fa def lu pire. <laughs> c'est extraordinaire te lan moo urgent. Hmm. ci indi ku mel ne Jean-Luc Mélenchon. lan moo non mais c'était le président de Pastef quand même moom moo doon recevoir. Euh, yéen yéen dañ leen dañ leen a élire pour que ngeen génne Sénégalais ci jafe-jafe yi nekke ngeen war a wàññi dund gi. ngeen war a fexe agir ci ay loo xamante ne c'est l'urgence président Macky Sall en 2012 xaarul woon ay plan Sénégal émergent de dañ ko fal tag mu wàññi njëg yi ñu fal ko tag mu wàññi impôt sur ñu fal ko tag aussi mu dem France Bassirou Diomaye fay loolu la defoogum. mais c'est c'est normal yow da nga defee ne le monde ça on est on vit dans une mondialisation bu ma amee man dem France am lu ma fa jëlee pour sama askan ma def ko. boo demee dem États-Unis même chose mais loolu relation koy def de yombul de ñoom même bu ñu bëggee dem France amaane sax bëggoon nañ fa dem mhm. mais peut-être dañoo amagul bunt amaguñu porte mhm. yow Joe Biden euh, Emmanuel Macron ak euh, Poutine mhm. toog ak ñoom du caaxaan de du caaxaan de c'est de grands états il faut nga am relation bi nga crédible nga nekk koo xamante ne ku régloo doo nekk dans la supputation comme ça dans dans la révolution rêve euh, comment dire imaginaire comme ça nga naan da ngay da ngay toog ak ñooñu moo tax nag suñu réew ah war nañ tiit de am nañu jàpp ne Ousmane Sonko dafay gêner euh, Bassirou Diomaye Faye par rapport ak euh, wàllu diplomatie nu mu war a doxee gis nañu euh, Ousmane Sonko recevoir na fi ay ambassadeurs yu bëri ñoo xam ne dañoo jóge ci yeneen réew est-ce que yow da nga gëm ne tey jii nii Ousmane Sonko dafa taxawee taxawaay président boroom xam yu bëri fustigé nañ loolu parce que c'est pas possible Ousmane Sonko bu joxoon benn cër bi au président Bassirou Diomaye Faye loolu du ko def peut-être nag ñun sénégalais yi xam nañ seen relation xam nañ ni kee moo nekkoon lider bi kee moo ne ah. sénégal yi moom euh, Sonko moo ñu joxoon Diomaye gars yi fal fal fal fal Diomaye loolu c'est réalité daa bëgg a doubler doubler Diomaye ca la nekk mm. xam nañ comment comment gis nga gis nga président de la république fi muy toog benn fauteuil la du ñaar benn place la du ñaari place te li ci kanam raw li gët dinañ observer parce que ce qui se passe là c'est intéressant hein en Sciences Po mhm. c'est très intéressant suñu réew c'est la première fois ñuy am lu mel nii maintenant on va observer pour savoir ce qui va se passer réellement parce que nag am na loo xamante ne wax dëgg yàlla ñàkk wormaal sax l'image di pays la parce que jomaay fay Faye le peuple bi fal moom itam xawma xaw ma lan mooy problème am mu naan day wàññi pouvoir am di ko jox son premier ministre mais il est en train de fair une grave erreur parce que pouvoir yooyu noonu moo tax peuple bi fal la boo ko yëkkatee defoo référendum defoo dara nga koy jox premier ministre mais yaa ngi def une trahison yaa ngi trahir le peuple bi la fal mooy dëgg très bien léegi ñu dellu si waat ci bon ci langue politique bi la ñuy desandi ba tey mais bi par dañuy wax opposition wax seen taxawaay yéen justement coalition Benno Bokk Yaakaar par ricochet APR parce que coow yi bëri na de seen seen diggante ak seen candidat bi. waa du ñàkk xam nga Khadija boo demee ba exerce pouvoir am une grande coalition bu leen fàtte ne Benno Bokk Yaakaar 2012 la ba 2024 di dit début la ba fin amul rupture te mosuñoo ñàkk élection muy élection locale muy élection législative muy élection présidentielle de 2012 à maintenant. bu leen fàtte ne c'est une coalition qui a eu 65 pour cent en 2012 dem 2019 am 58 pour cent am un leader reconnu mondialement am un leader crédible muy le président Macky Sall parce que nag président man dama jàpp ne day fees place am day fees dell place am ku ñëw respecté ko fu fu mu dem aussi ñu respecté ko ñu am coalition bu mel nii bu doy nii coalition Benno Bokk Yaakaar boo demee nag en un certain moment sa kër sax njaboot gi souvent da gis ñoo xamante ne ñoo la gën a déggal ñeneen ñoo xamante ne déggaluñ la diitu loolu du ñàkk rawate na nag ci politique boo xamante ne c'est une liberté qui dans ce faison nous en politique liberté la ku mu neex def lu la neex parfois benn bokk yaakaar bu ñëwee fii bu ñu ñàkkee élection sa à dire waru leen a bett ñenn ñi transhumé sax waru leen a bett ñun on attend on s'attend à tout hein. ah bon nga xam dañu jógee si yéen. dem ci dina euh, am le pouvoir actuel. mais dina am est-ce que commencé wul sax ah dafa am ñoo xam ne amuñu benn courage. Hmm. amuñu benn courage. comme bari nañ. Hmm. mais bon xam naa ne bientôt danañ gën a fësal seen bopp parce que mbir mi amul laaxat munoo laaxatu. Hmm. boo transhumé munoo laaxatu mais li ñuy ñaan rek ñu diiñ ñu xam ne wutoon nañ nguur am nañ nguur exercer nañ nguur nguur. entre temps na a perdu le pouvoir nañu opposé wu dignement gis nga ñi fi toog ëpple wu ñu dara ñoom dañoo xeex ba jot li ñu jot ñun aussi mën nañ xeex ba jot lu ñu jot surtout les jeunes il faut qu'on reste qu'on forme euh, une dynamique qui sera l'opposition. Mais il y, problème entre Macky Sall et Amadou Ba Amadou Ba fait partie de de l'APR euh, Macky Sall ba tey mooy président APR est-ce que tamit loolu gars yi ñoo ngi wax Amadou Ba dina génn peut-être wax euh, ba tey gisuñu mu génn wax est-ce que tamit loolu narul indi un peu jeexi jaaxi ci seen parti bi parce que kenn xamatul fi ngay taxaw. yéen sax seen parti da ngeen divisé wu actuellement. c'est-à-dire que sunu parti. Hmm. le président du parti c'est Euh, congrès bi nga xamante ne moo defoon Amadou Ba candidat di parti congrès boobu la ñu renouveler waat suñu confiance ci président Macky mu continuer nekkal ñu président di parti loolu il faut nit ñi xam ko c'était au King Fahd Palace euh, candidat nag lañ choisiroon pour mu nekkal ñu candidat muy le président Amadou Ba mais bi élection jàllee mais on reprend le parti le parti kan moo ko jiite du président Macky moom mooy le président du parti lépp lu mu dogal ñun dañ cee ànd. parce que nag suñu texte du du du du du candidat Amadou Ba. mais candidat Amadou Ba il est membre du parti dans le parti mais qu'est-ce qu'il va sur l'échiquier politique de de l'APR. non il est dans le parti bu leen fàtte ne ñu bëri ko jàppale woon ah. Hmm. te c'est grâce ñu ko jàppale au choix du président Macky moo taxoon. nit ñi jàpp actuellement il est le chef de boo xam ne euh, amoon na ay jiixi jaaxa aussi. Mm-hmm. mais mais loolu déggoo li ma la wax politique dafa am liberté boo xamante ne kenn mënu ko dindi ci politique président sax léeg-léeg day wax am ku benn dof bu taxaw fa leen d'accord ma nangam ak nangam fekk du ko wéer ci dara du am benn argument. Mhm. maintenant nag ñun de ñun jeunesse bi jàppale woon nañu Amadou Ba bu baax a baax parce que li taxoon aussi ñu jàppale ko mooy li ñu ko choisir li li ko président Macky Sall choisir woon. Mhm. jeunesse APR jàppale na ko bu baax de man votel naa ko ñi ma xam. chez moi votel nañ ko sama commune je l'ai gagné à hauteur de quatre-vingts pour cent et poussière donc njàppal fa la mën a yem. Mhm. parce que nag carte mooy fale. Mhm. sànnil nañ ko suñuy carte ñu bëri ñu ne Macky Sall dafa trahir Amadou Ba Abdoulaye Mokhtar euh, Mokhtar euh, grand serigne de Dakar dégg nañ ko également dégg nañ Abdoulaye Seydou Sow nee am Macky sax voulait changer un candidat avant donc le climat euh, quand même ne diggante Macky Sall ak Amadou Ba. mais ñu bëri li ñu wax noonu. Hmm. allez leur dire que c'est Amadou Ba ci naka c'est lu qui ki a trahi le président Macky Sall ce n'est pas le contraire. parce que le président Macky Sall. lépp lu mu mënoon a def def na ko jël na Amadou Ba def ko candidat loolu ku ñu ko defal kooku wàccoon na ak yow. wàccoon na ak yow ak lépp lu mënti di xew après kooku wàccoon ak yow parce que ñëpp bëggoon a nekk candidat. président ñëpp la fi wàccoon ne yàq bu naqari jël Amadou Ba def ko le candidat. mais loolu rek loolu rek dama ne la président wàccoo naa kooku. mais Moussa. mais allez dire à ces gens là. qui disent que c' le président qui a trahi le candidat Amadou Ba allez leur dire que c' est a trahi le président. en quoi faisant Macky pas le contraire. na la ko trahiré. du fii laa koy waxee de. ah Moussa déedéet lu tax. non déedéet. Hmm. ah ñu bëri jàpp nañu coow li dafa am Amadou Ba dafa jaay suñu réew bitim réew moo tax bu mu ñëwaatee euh, Macky Sall mere ko est-ce que loolu dëgg la. foo ko déggee man man. waaw am si yéen ñu ko wax. waaw waaw man naa am déggoo li la wax loolu kay du ci wax. am na ñu ànd ak Amadou Ba bokk seen parti déjà Amadou Ba ñoo koy xaar mu def. déclaration tamit loolu doy na war daal Moussa seen parti bi yéen opposition bi déjà da ngeen divi divisé wu ba pare. non division boobu. kon Macky gëm nañ ne comme ñi ñenn ñiy wax dinañ ñëwaat ci. lan langue politique bi mën nañ ko xaar Macky déggoo li la wax division charme la parfois en politique coow li. Hmm. c'est bien les gens vont parler de nous et ils ne vont te ñun bu ñu sañoon en deux mille vingt neuf mu revenir te c'est possible mm. parce que amagul soixante quinze ans de il ah. faut ñu xam ko tamit mm. président Macky Sall c'est un bon profil pour nous mm-hmm. parce que président Macky Sall il s'est arrivé à maturation en 2024 malheureusement ñun sénégalais xamuñu lu baax mm-hmm. ñu wàcc ko mu dem noonu mm-hmm. mais il devait pas partir parce que gis nga projet yi mu fi yi mu fi tabax projet yi fi nekk ñépp ñii ñoo ngi inauguré sax ay projet yu Macky Sall te pourtant démb ñoo doon ŋàññi projet yooyu mais c'est tellement contradictoire que li fi nekk ay reetaan la may def ah ma ne état tam continuité la continuité la c'est vrai mais démb ñoom ñoo ko doon xarab di ko di di di ko di ko attaquer de gauche à droite par ces projets c'est pas l'urgence et cetera aujourd'hui c'est eux qui sont là ñoom ñooy naan way BRT lu baax la parce que ça permet de transporter tant de de de de de de d'usagers et cetera donc dama ne ñi fi ne man wékkuma sama yaakaar ci ñii te képp ku yaakaaroon ci ñoom bu la yaboo nga seeti ñeneen. Mhm. très bien beneen yaakaar boo xam ne ñoom suscité nañ ko ba ñu ñëwee bokk na ci action yi ñu ko posé moom mooy lu jëm ci wàllu foncier bi audit yoo xam ne bëgg nañ ko def ngir xool anam yi nga xam ne la ñu octroyé yenn booy parce que gis nañ ne xëy na am na ay mbir yu tegoowul yoon ban jàngat nga am ci sujet boobu déjà ndax gis nañ ne ki nga xam ne moom mooy Doro euh, woon na loolu le de la République teg nañ ko loxo ci ci wàllu boobu même si c'est en privé moom moo porté plainte Doro Gueye d'abord dama koy masaw mm. Euh, dama koy masaw bu baax parce que fu mu toll nii comme que enquête amagul xamuñu dëgg bi fu féete donc il ne faut pas qu'on aille trop vite dans les supputations mm. ñuy wax loo xamante ne si peut-être bu ëllëgee la contraire mën na mën na am mm. dama koy masaw bu baax di ko aussi soutenir ci fi mu nekk bu baax a baax euh, foncier bi li ma ci mën a wax xam naa ne du bari faudrait que ngeen jàpp ne état musul jaay un mètre carré ci hangar pèlerin wala ci euh, au niveau de de l'aéroport loolu mës a am parce que nag man dama gis benn communiqué qui date de deux mille vingt deux ou deux mille vingt et un quelque chose comme ça ñu ne état jaayul un mètre carré ci loolu déedéet c'est pas l'état donc naka la ñu mën a waxee ne Doro Gaye yor na ay mètre carré yu bari suuf su bari di ko jaay pour des missions secrètes et cetera bon je, je sais pas mais jàpp leen ne muy président de la république muy directeur des impôts et domaines directeur des domaines ñoom dañ bind communiqué woon ñëpp ne état attention état jaayul kenn état du jaay c'est pas son rôle état du jaay c'est pas son rôle meneen maintenant nag le foncier d'une manière globale ñi fi nekk peut-être am na lu ñu ci xam bu ñu xamul foncier moom jàpp leen ne xamuñu dara parce parce que nag. foofu lañ leen foofu lañ leen gën a yaakaare parce que jàpp nañ ne fa lañ nekkoon. Mm. direction des impôts et domaines. bu ñu demee nag ba mënuñu régler foncier leneen li moom bu leen ko sax yaakaar parce que ñoom ñëpp booy xool ce sont des impôts inspecteurs des impôts et domaines. rapport yu bëri aussi na ñu fexe nañu fexe ñoom seen wàllu bopp bu ñuy def audit di foncier. Mm. nañ ko tàmbali bu leen neexee nañ ko tàmbali 2012 ba 2024 pour couvrir tout le magistère di président Macky Sall. rapport yi également wala ñu tàmbale ko 2020 2000 2000 ci boppam 2000. waaw l'an 2000. ba 2024. non mais nit ñi dëgg lañ bëgg di nit ñi lu leer lañ bëgg. buñ ko tàmbali ay 2000 mais c'est trop facile ay 2022 wala ay 2020 20 ñuy tàmbali foofu audit 4 ans wala 2 ans. ca à dire que ñoom peut-être diggante 2012. ba 2020 nañ ñu wax ñoom seen wàllu bopp <coughs> ci yan dossier la ñu melew. ñoom moo parce que mhm. ça laisse. croire que am na lu ñuy daw ci diggante boobu. Mhm. parce que nag inspecteur impôt et domaine quand ñoom je pense que. Euh, def nañ erreur te nañ moytu bu baax foncier bi ñuy wax. Ah, en tout cas ñu def nañ déclaration de patrimoine sinon ñoom seen wàllu bopp. Hmm. dinañ ci am ay surprise yoo xamante ne. dina leen taqal ba ci coup. Hmm, hmm. moo tax ñoom mais c'est sûr et certain ci boobu lañ nekk Moussa mooy. léegi ñu teg ko ci suuf man maa la boo xoolee dama ne la jub jubbanti boobu sax balaa ngaa jubbanti foog nga jub d'abord. waaw mais nous sommes combien 19 millions euh, wala 18 millions d'habitants au Sénégal. waaw 196 714 kilomètres carrés en termes de Euh, superficie superficie n'est-ce superficie wala surface. superficie. superficie waaw très bien. Mm-hmm. yow yow mokkal nga solution simple de fàttewul Khadija. Mm-hmm. cent quatre vingt seize mille sept cent quatorze kilomètres carrés. Mm-hmm. n'est-ce pas. boo ko convertir en euh, en en en kii en nu mu tudd en en ñaata lay doon dix neuf millions d'hectares. dix neuf millions six cent et cetera hectares. mais ñun nous sommes. dix-huit millions c'est-à-dire kenn nit ku nekk sax bu jëlee en hectare boo moytul du baax danañ dañuy delluwaat ci calcul bi. d'accord ku nekk moyen d'un hectare la war a jël. Mhm. pour que sénégalais bu nekk am ci suuf si. Mhm. mais le président Bassirou Diomaye Faye lan la wax. il a acheté 4 hectares xaw ma au niveau de Sandiara ak leneen lu mu am cela veut dire que moom tey bu ñu doon séddoo dinañ ko ne yow li nga yor ëpp na. d'accord joxe joxe ci li nga yor léegi Moussa balaa ñu jeexal donc ça donc ça veut que lii. Hmm. wàllum suuf si bu leen neexee ñoom. ñu hmm. avancé mais buñ ci avancé. Hmm. ah dinañ am lu leen naxari de. d'accord parce que yéen a ngi doon dégg ne yéen a ngi doon dégg ne jaay na. Euh, quelques mètres carrés à son ministre des finance yéen a ngi doon dégg ay yeneen ak yeneen yoo xam ne ñoom mënuñ cee <laughs> génn. Hmm. kër yi ñu am ni à Dakar un peu partout mais xam nañ nu muy demee des hmm. inspecteurs des impôts et domaines. Hmm. ñu ci bari. mais du du du seen xaalis. xobet xobet. coow li bëri na lool demee. coow li bëri na lool ba bañ na ko rapport yi sax épinglé ni ñu bëri gis nañu également euh, ku fi nekkoon ministre bokkoon ci yéen di Mansour Faye doomam ñu jaal di jàpp aussi ci xaalis lu bëri sax est-ce que loolu aussi wanewul ba tey ci logique jub jubal jubanti bi Moussa. c'est-à-dire dafa am loo xamante ne si gis nga man new ma ci euh, nekk fii di wax loo xamante ne bu ma génnee nit ñi xeeb ma xaalis bu bëri boobu je di dis que ne nit munul munul am xaalis bu toll noonu munu ko am mais doomu doomu un ex ministre en même temps nekk maire de Saint-Louis si. quand même c'est c'est si je, si je vous comprends si je vous comprends très bien mm doomu ministre warul mën a am xaalis bu ni mel bu toll noonu te pourtant keneen mën a am possibilité am ko ñeneen ñoo xamante ne ay doomu PDG lañu ay doomu euh, je sais pas directeur télé wala rajo wala yeneen ak yeneen mais il faudrait que quand même qu'on se pose des questions mais mën na ko am c'est possible. jërëjëf c'est possible loolu laa bëggoon ngi noonu. ku nekkul doomu ministre am loolu waxtuma la ak doomu ministre doomu ministre mën na am lu ëpp loolu quand même. il faudrait que souvent bu ñuy analyser ñu tolloole nit ñi. très bien Moussa te te dossiers yooyu yëpp c'est des dossiers yoo xamante ne ñoo ngi ciy doog a jot. y a même pas deux jours donc ñoo ngi ciy doo a nañu xaar résultat. enquête yi bu ko defee ñu mën ci waxtaan bu baax a baax xuus ci. Mhm. képp ku am dëgg ñu jox ko dëgg képp ku nekkul ci dëgg ñu ne la nekkoo ci dëgg jërëjëf Sénégal loolu la manqué fu mu toll ni jërëjëf Moussa Sow bu APR moo nekkoon suñu gan tey ci seen émission euh, matin bonheur euh, waxtaanee nañ lu ñeel euh, réew mi jamono ji ci langue politique bi ak yeneen i mbir ñi lay jaajëfal bàyyi la très rapidement nga tàggatoo. jërëjëf Khadija maa ngi lay sant gërëm la ci dalal bi jërëjëf également Abdoulaye. jërëjëf di la jaajëfal. merci Khadija rendez-vous est donc pris pour demain à la même heure attendant les programmes continuent sur pour Good Morning et à 13h la rédaction vous donne rendez-vous pour l'édition en wolof en attendant restez en compagnie de nos programmes merci et au revoir